salaamaaleykum bokk internet bu Guédiawaye info TV tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy kër Père Alioune jaw bu ñu nee Père Diaw ñëpp xam ko ak le grand champion Balla Gaye numéro ma daal koy tuddee le héros du 13 janvier bu ñu nee Père Diaw aussi ñëpp daal koy naw ndax charisme am mu doon nit ku éloquent tey bu yëkkatee kàddoom ñëpp daal koy may nopp mu doon aussi nit ku franc nit koo xamante ni saa yu waxee rek ñu daal ci jëlee njëriñ daal ciy taataan yu am solo kon Père mu nekk fi kilifa au niveau de Guédiawaye Père ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo présenté ak bokk internet yi waaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur maa ngi sant Serigne Babacar Sy ndax man nu ma mel sëriñ Babacar Sy may gërëm waa géejawaay nag bu baax ndax géejawaay deseeluñ ma dara ndax baatu géejawaay tey ci wàllu làmb wala ci wàllu sport géejawaay bàyyi nañ ma xel fu ma dajeek géejawaay doom yi mag ñi dañ may gërëm ngir sama taxawaay wolof dafa wax ni àll lu fa ñuul moo di ñàkk ñaareelu point bi muy man tam géejaay mënuñu maa fay kon nag loolu rek mooy suma taxawaay te di wax ni amna naa fierté trop ci sud bi ndax man géejawaay ganaaru géejawaay sax buy xeex ak benen ginaar ginaaru géejawaay laay faral ndax man sëtu yore jaw booli mbooj laa ca waalo doomu buur la may wax rek ni kontaan na trop ndax amna na jamono ma doon wax ni bateau yi ñu ngi yeb ay télévision di ñëw jamono ngi ñëw di ngeen bëgg ku ngeen laajte du leen ko am jamono jooju ñëw na tey site pour mu dox walla bépp télévision pour mu dox il faut mu daje ay ndaanaan yu am xam-xam li mu leen di laaj ñu ciy joxe version yu leer a leer kon maa ngi lay xamal ni maa ngi lay déglu ba nga laaj ma leneen. waaw père loolu am na solo mais bu loolu weesoo ngeen jóge ci combat boo xam te ni mun naa ni c'était un combat capital mu doonoon combat boo ni bëri na coow. wax naa ko ci nouveau engouement bi ndax coow lim doon suscité bëri woon na trop damay faral di wax c'est un combat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive mais aussi côté aspect mystique mu doon combat am ten ñu bëri dañ ci dañ dañ ci doon wax di doon combat am ten doyna na waar kon il fallait que nga am benn sérénité wala benn mental d'acier pour mën a préparer ce combat boobu génn ci combat boobu nan ngeen ko waajalee pour revenir ci préparation bi waaw damay wax rek ni Balla Gaye gàcce ngaalama gàcce magu géejaway yi gàcce ngalaama jigéenu géejawa yi gàcc ngalaama jeunes yi nekk ci biir géejawa maa ngi remercier ñëpp ba ñu dëkkul ci biir géejawa yi ndax Balla Gaye à travers la monde fii ci Afrique ñëpp dañ koy dund ndax mooy kii dundal làmp à tout moment damay wax ni Balla Gaye xorom la ci biir cin boo toggee ceeb te defoo ci xorom du neex may wax ni bis boobu nga xam ne suñu borom dogal na ñu jàll ci ak jàmm ñu ngi ciy gërëm yàlla suñu borom di julli ci yonentam bi di sant suñu waajur yi nekk fii nga xam ne ñoo ñu meññal Balla Gaye may wax rek ni roi de arènes bi ko Balla Gaye di am vingt quatre ans la kon gàcc ngaa la ma Balla Gaye képp ku fi ñëkk ku fi ñeme dëkk mbër yu mag yi Balla Gaye moo tax ndax moo fi daan ñi fi man est-ce que xam nga Balla Gaye moo daan Moustapha Guèye xam nga ni Balla Gaye moo daan Baboy Balla Gaye moo daan Mohamed Ndao Tyson Balla Gaye moo daan càppaaculi gi dooma laaj kan mooy càppaaculi laaj ma kan mooy càppaaculi kan mooy càppaaculi mooy Yékini Jóob Yaxya Jóob seen tàkkusaan nga bi arbitre bi soufflé dañoo daw daje Balla ngoobu ca ngemb la ñu xeex bi Yékini jaaxle dafa dew jël tànk bu nuuju ko mu def kat àppi Balla talal loxoom arbit bi ni ko bëre mu déclenché coup balla daw ŋoobu ko wiiru ko mu cabaxal ko mu gaawi ko wañ ko mu ni gànk kon nag gàcce ngaalaama Balla Gaye ba nga laaj ma leneen waaw père wax ji am na solo mais pour revenir ci préparation bi rek nan ngeen waajaloon bés boo nga am te ni bés bu mag la woon bésu Modou bi ak Balla Gaye Modou ba ngeen da Balla Gaye un an ndax Balla Gaye mu ngi juddu quatre-vingt-six kon Modou Lo moom ak Balla Gaye damay wax à tout moment nag Modou bu toll ni bëri du bëri bëri waaye bis bi bi mu taxawee eh, yàlla dafa nu booleeg suñu frère ñu ngi wax Abdou Aziz Ndiaye tey mbooloom doomu géejaay fu mu mën a nekk ci àdduna bi rek mu gërëm Abdou Aziz ak Baye Ndiaye ak Baye Aale mi waajur Abdou Aziz di gërëm famille Aziz yëpp ñi mu bokkal ndey ak ak ñi mu bokkal Baye Baye Ndiaye nag noppeem dafa gën waxam dama ni bis boobu Modou Lo daf fi jógee dem Espagne yóbbu ay champion Yékini Papa Sow Goro Sock ak franc yóbbu ba yóbbu ku koy toggal kon Modou Lo loolu mu def mooy niveau professionnel làmb ji il faut ñun ñi nga xam ne ay dirigeant lañu ñu ciy wax ñuy partager cër yi gàcce ngaa la ma Modou Lo waaye nag yaakaaroon na ni sama doom ji du dellu si sama doom ji Eumeu Sène daf ko daan ñaari yoon première jël bi boobu Balla Gaye xale la deuxième jël bi bi ñuy bëriwaat Balla Gaye respecté wul Eumeu Sène mais kuy takk ngemb ci làmb ji Balla Gaye la man masta def kat appi benn yoon la ko def masta bëri ñun ko kaay bërewaat masta dem ci ardo masta tugal recours kon gàcce nga la ma Balla Gaye li ma xam mooy tey bépp doomu géejaway am nga fierté bépp magu géejaway am nga fierté bépp mbër muy takk ngemb fii ci biir am nga fierté ndax bis boobu bi nga xamee ni yàlla dogal ñu ci stade bi Abdou Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye ak ñoom Pape Mama Andaw Daouda Seck Moussa Fall dirigeant Géejaw yëpp jog Omar Gueye ñu jog jàppale Balla Gaye teg ko ci ay conditions as yóbbu ko Europe def ci moom ay centaine de millions Balla gay am ngor gu toll ni mbooloom fukk as jaarale woon mu jaar fa du ma ni sëriñ si lu am solo lañ ci làmb waaye làmb avant tout da ngay pare Balla dafa pare sëriñ si pare nun dirigeant yi ñu pare ñu dem sa bis ba gis nga mbir mi ni mu demee ba nga laaj ma leneen. waaw ci kaw loolu rek li nga xam na solo yóbbu ngeen ko INSEP mu daal dem dafa liggéey bu am solo ñu bëri coow li bëriwoon nañ ñu ne mënatul ñëw ñu naan li ko des ci làmb bareetul mais Balla ñu andi benn force boo xam te ni force bu jaaxal ñëpp la. au niveau physique mu ñu doon delloo ci ginnaaw Balla bi ñu xamoon 2009 xam ko 2005 tey ci wàllu travail bi yan yan ci yan loxo ngeen ko tegoon ba mun a am lii ci moom. waa xam nga Balla li mu doon def ndax yow doomu géejawaay nga boo dëkkoon ci beneen gox di ma laaj. dafay mel ni kon li nga may laaj xamoo ci dara mais Balla Gaye ni mu koy suivre ku koy suivre Balla njàmbaar yi fàkk tëdd la Balla garmi la Balla gor la Balla nit ku baax la Balla nit ku lewat la Balla ku mën a joxe cër la ma lay wax rek nii préparation Modou Lo ak préparation Balla Gaye du ñu benn ndax demoon naa ci benn site internet xamal leen Modou bu ñu questionné woon yaram mi yaram mi daan dafa yaram mi dafay wax ni man dama sonn kon bàll bi mu demee liggéeyi ba ñëw e bi arbitre bi ñu tuusee xam na ni bàll ba woon dellu si na bi arbitre soufflé gis nga programme bi bàll gay bëre kon damay wax rek nag bàll gay yàlla ko jàngal bëre te ko yàlla jàngal bëre boo bëree mu feeñ ba nga laaj ma leneen. waaw père loolu bu loolu weesoo ñu daal dugg ci événement bi parce que keroog Balla ñëw na ñu daal di marqué retour am parce man j'ai l'habitude de sax Balla dafa marqué daal def retour triomphal parce que au niveau de l'ambiance dafa ñëw def li ko xamee woon mais tamit ci wàllu bëree bi tamit mu daal ñëw diriger combat bi dicté loi Modou Lo ba am li mu bëgg ci moom keroog ni Balla ñëwee luñ préparé la ba tamit bettu leen ci benn côté. non Balla bettuñ ci benn côté ndax Balla moom avant muy bëree day toog ak ñun yéen a ngi monté émission bii ngeen di def ak man mais Balla dañ koy monteel combat bi ni ko mbër mi ci programme bii ngay bëree ak moom ndax Balla daf ko méboon bale mais bi bal daf ko fetal bi mu ko fetalee avant muy riposte mu karkaral ko fatta ko ak garde bi mu déclenché ñu daw xeex mu dóor ko mu rëppeelu def trois appuis boo xoolee ci biir sit bi balla talal na loxo bi di xaar ñaari programme mu bal boobu Modou Lo ñëwoon damay takk ndigili mais Modou dafa daw téye ñu ngoobante ay ngemb man de ngeen ko natt ko fan la toll ci phase bi ndax boobu maa ngi programme mbóot mi ma mbootoon kolifay mais bi ma xoolee dañ ko ko tere ndax ndaama la mën na ko mboot mu mu wiiru ci kawam puus ko taw takk ko loolu moo tax bi ko bàll yërndoo wóorul bàll surxal ko ŋoobu ko fàq ko te automatiquement bàll daal gàcce ngaalaa ma ndax toll naa foo xam ne ci làmb am na parole yoo xam ni dam ko war a tënk ndax dama war rafetal ndax Modou Lo ak Balla yëpp suma njaboot lañu te bëri nañ ci jàmm et làmb ji jeex na ci jàmm saafonte nañu ñuy sama ñaari doom parcelle di ma déglu géejawaay di ma déglu àddina bi di ma déglu kon lépp lu ma wax rek dama ko rafetal mais gàcce ngaalaa ma Balla Gaye ba nga laaj ma leneen waa li gën a jaaxal ñëpp mooy xeex bi parce que ñu bëri dañu yaakaaroon ni bu ñu demee ci bagaar peut-être Modou Lo dina dina am lu mu ko ëppalee tuuti mais Balla Gaye ci bagaar dafa ñëw diriger ko mun naa ni yan ko sax lu diis parce que change na ko ay uppercut yoo xamante ni diminué na ko physiquement bagaar boobu dañoo jaaxal ci moom. dama lay wax ne la Balla Gaye mës a dem ardo Balla gay mbër yi duñ fi xaaw duñ fi xaar ku ku mën a xeex la ndax lu ñu leen mën a jàngal bu ñu demee ba ci biir dañ ko fi daan ñukk xeex mbedd ndax xeexu mbedd moo jig mbër xeexu professionnel jigul mbeur mais Balla coup bi mu nattoon Modou Lo bi mu ko doon fetal suko dalon lenen lañuy wax mais modlo gatcha ngala mais dal dama lay wax ni ko babbi dafa jall may kilifa gu ñepp baye xel ma wara rafetal mais tay li ma waron laaj moy à l'avance combat mais combat bi tek nañ suñu bët xol nañ ko xalaat nañ ko xam nga man xamna li ci bir nañ ko baye ci bir malay wax ni roi des arènes dana ñëwaat bir ndax Balla Gaye waxoon na danaa nekkaat roi di arènes ki nga xam ne mooy doon roi des arènes muy Eumeu Sène moom nee na du bëreeg Balla Gaye may wax ni coupe du monde rek nekkul ci football bi coupe d'Afrique nekku fi am na yenn xeetu coupe yoo xam ni tubaab yi créé nañ ko kon nag di fait que Eumeu Sène mi nga xam ne mooy roi neen du bëreeg Balla Gaye te Balla Gaye daan na Modou te combat bi amateur yi bëgg mooy diggante Eumeu seen ak Balla Gaye bu di contact am na droit ni dootul bëreeg Balla mais nag dafa téye roi des arènes bi roi bi doon benn mbër yëpp soxla ko mu jël ko kon amatul droit naan du mu bëreeg ma sàmba wala ma dem dana bëreeg Balla Gaye wala ñu créé yeneen trophée teg ko ku daan jël. Balla gay nag daan na moot loo ñaari yoon mais fii ba di combat heure bu móodloo paree ñun ñu pare dañuy bëriwaat nu nekk nu fi naan dañuy bëreeg diw du ñu bëreeg diw ñun pare nañu pour mbër yëpp ba nga laaj ma leneen. waaw loolu am na solo démb rekk waxtaan nañ ci ak mbër sax mu daal ñu xamal ni tey la gën a engagé wu pour. Euh, Euh, reconquérir titre roi de arènes mais li ma jaaxal tamit mooy da nga ni Balla Gaye ak Eumeu Sène fuñ fuñ jaar dinañ bërewaat mais est-ce que loolu dina yomb parce que Eumeu Sène dafa mel li mu waxoon moom lay bëgg a dëggal ni dootu ko jël. waaw xam nga Eumeu Sène suma jarbaat la. xam nga y a des gens yu bare bu ñuy seetaan ci site internet yi souvent nga dégager benn moo ñooñu du ñuy gisee noonu ne Balla nekk suma njaboot la Eumeu seen nekk suma njaboot Eumeu Sène li ko desal ci làmb ji bareetul te combat bi nga xam ne moo gën a intéressant mooy digganteem ak Balla Eumeu Sène du ma ko mas a sànni xeer man dégluwuma kenn dara duma ma metti ndax bari na ku bëgg ñu laaj ko te laajuñu ko xam-xam bi ñuy laaj ci mën la ne tey kaddu géejawaay maa ko yor maa àndoon nag mbër mi keroog ku ma xam-xam ni dama sañ si mais dama mujj takk suma ndigg ndax géejawaay dañ ma yónni ma lay wax rek ni Eumeu seen bu bëriwul ak Balla Gaye dinañu créer beneen trophée teg ko ku daan doon roi des arènes ba nga laaj ma leneen